ba tey revenir na peut-être sur ces sur ces propos yéen on va y venir le groupe Gëm sa bopp yéen tamit mouvement Gëm sa bopp wax ngeen yeneen scandale mais est-ce que jaroon na tey ñu yegg si fii nii parce que ku poser interrogation la meilleure manière peut-être c'était juste de répondre ou de démentir. Ah, daf may jaaxal su ma gisee ku mel ni Hadjibou Soumaré ñu koy traîner comme ça dans la boue parce que dafa am lu muy représenter ci réew mi koo xam ni dafa occupé woon une haute mu toog fa am jaar jàpp naa ni ba poser ay question nekkul ay questionnement yu anodin am na loo xam ni bëgg na ko insinuer mais li gënoon simple moom mooy comme dafa am benn démarche philosophique nga xam ni même bu ñu ko répondre sax réponse yooyu xëy na dina engendrer waat yeneen yeneen questionnement dama jàppoon ñu répondre ko moom mooy gën a taaral sunu démocratie waaye comme li ñuy wax rek guvernement bi ñu nekk nii dañu am seen propre doctrine ak seen propre vision du Sénégal mooy ni tey dañoo gis ni ñoom ci gouvernement despotique la ñu nekk ci gouvernement boo xam ni c'est monarchique ñoom lu ñu def baax na waaye ñeneen ñi même bu ñu laajee wala ñu reetaan sax ñu jàpp leen ràpp tëj ci kaso bi te loolu gis nañ ko dem nañ ba kaso yi fi mu toll nii ñi ñu fiy tëj ci ay motifie yi léger leen di tëjee ma jàpp ni tey ñi nga xam ne dañoo gérer suñuy deniers publique nga xam ne dañoo am droit ñun laaj leen parce que ñoom dañu ñu digoon ni bu ñu accéder au pouvoir li ñuy njëkk a def mooy transparence ak bonne gouvernance dafay nekk loo xam ne dafay ñoŋ ci mim réew. waaye li ñu seetlu moom mooy même bu ko Hadjibou Soumaré laajul l'écrasante majorité des Sénégalais ñi ngi poser les mêmes questions parce que amoon na question bu jiitu loolu fonds sept milliards u Taïwan yi am na ko posé woon président Macky Sall ni ko ci yan compte nga ko dugal. mais question boobu musu ko répondre pourquoi yóbbuwul sa Seck ma ko laajoon ci ndungu siin président Macky Sall am na questionnement yu bëri yoo xam ni yàgg nañ ko ko ku mel ni le président Abdoulaye Wade muy wax ni daf ma moo may 7 milliards moo may 8 milliards. président Abdoulaye Wade dafa wax ni du dëgg. mais yooyu aussi ay autant de questionnements que les Sénégalais se posent te amul réponse jusqu'ici Sénégalais yi dañu sonn les priorités sont ailleurs jàpp ma ni war nañu nekk ci réew moo xam ni chaque jour de xëy benn jour te déggoo ay scandale à coup de milliards. Mm. la vérité va triompher. la vérité va triompher parce que am nañ ay leaders yoo xam ni ñu ngi nekk ci opposition bi. duñ tardé seen bopp xam nañ fi ñuy duut baaraam te dinañ éclairer la lanterne de sénégalais te loolu processus boobu lañu ñu commencé ak Hadjibou Soumaré ak le président Bougane Gueye Dany ak yeneen i opposants lépp loo xam ne jaarul yoon danañ ko bàcc ci askan wi ba ñëpp xam ni nii la demee xaalis bi fii la dugg ci compte yi la dugg parce que tey dafa mel ni booy xool li Hadjibou Soumaré wax prolongement la ci le président Bougane Gueye wax Hadjibou Soumaré li mu wax c'est très grave mm. Marine Le Pen nga xam ne ni mu bañee nit ko ñuul mu lay rappeler Hitler avec la race aryenne. Mm-hmm. nga xam ne da doon wax ni métissage sax dafay mel ni blasphème contre la volonté de Dieu. nga jël ku mel ni Marine Le Pen ñuy laam-laamee ba xam ñëw na nga jox ko ay pot de vin wala nga am loo xam da nga ko jox comme cadeau ci suñuy deniers publics ci réew moo xam dañ lay wax c'est un pays pauvre et très endetté pays boo xam ne nit ñi bu ñu xëyee bu ñu lekkee dañuy négocier guddi gi. réew moo xam ne nit ñi bu ñu bëggee jàng ci l'école bi table banc yi dañ koy affecté trois à quatre élèves réew moo xam ne dañuy am abris provisoire réew moo xam ne boo demee ca jaxaay am na centre de santé boo xam ne ba léegi gouvernement mun ko àggali réew moo xam ni hivernage bi nga xam ne mi ngi ñëw mi ngi commencé ëlëm bopp askan wi ak borom bopp borom kër yi. Mm-hmm. réew moo xam ni boo tegee sa table di jaay sañu la puusal du fii réew moo xam ni ku jàng ba pare doo am ful la insérer réew moo xam boo feebaree mënoo faju mais réew mu mel noonu mënuñu comprendre. à chaque fois ñu ñuy poser la même question scandale bi mill milliards scandale bi 98 milliards scandale 7 7 milliards et cetera ku mel ni le président Bougane Gueye Dany mhm. dafa am loo xam daf ko wax mu détaillé ko Sénégalais yi jusqu'au détail plus près mu leen dañu amoon benn plan spécial de désenclavement du Sénégal. alors on, on va y revenir moom mooy nekk suñu suñu deuxième suñu deuxième euh, suñu deuxième ah, sujet. si vous le permettez on va juste parler de de cette histoire Hadjibou Soumaré laata ñuy dugg maintenant ci euh, bu bu Bougane Gueye Dany euh, ñu gis Sidi Sidi ne que quand on parle aujourd'hui bu ñuy wax waxu sept milliards yu ñu jox benn opposant Euh, français ñu gis ne que quand même euh, sooy wax waxu France bay xalaat ni que yaa ngi leen di jox autant d' argent euh, est-ce que jotul woon tamit ñu teg Hadjibou Soumaré mu expliquer wu par rapport à ça parce que c' est compliqué déjà nga dugal fa autant d' argent ci ci kii mais même parti politique buy recevoir xaalis boobu li muy risqué. merci beaucoup Néné mais xam nga man question boobu dama ci gis ñaari mbir. Hmm. parce que souvent dañuy appuyer ci le fait que. Abibou wax waxu le premier ministre Abibou Soumaré wax problème mu sept milliards yi. ñuy appuyer trop ci sept milliards yi sept milliards bari na trop xaalis bu bari la. Mm-hmm. mais jàpp naa ni recevoir Marine Le Pen moo gën a graaw sept milliards yi. Mm-hmm. à dire que sept milliards bari na lool lool lool lool mais recevoir Marine Le Pen moo gën a graaw jox ko sept milliards. c'est-à-dire ni tey wala ñu naan jox na ko jox ko parce que comme Abibou Soumaré mi ko wax questionnement la man loolu xawuma ci dara mais mm-hmm. une chose xam naa ko. sept milliards ou dix milliards ou milliards mais li Marine Le Pen représenté au niveau au, au, des Sénégalais au aux des des des, des Africains au mm-hmm. yeux des des Noirs tout court ñun ñu recevoir ko fii au niveau du Sénégal. loolu nga jàpp ne que moo illogique. loolu moo gën a garaaw jox ko sept milliards foofu laa jëm. Mm. parce que xam nga bu fekkee def nga. tey boo demoon Italie. Mhm. nga ni legge Umberto Bossi ak Fini. Mhm. legge Fini Bossi. nga tuddal ko italien yi ñu ni leen tey président Macky Sall recevoir na leen képp kuy immigré nekk Italie dina xam lan la ko Fini ak Bossi yàq ak seeni i partisan di leen duuma di leen saaga subaak ak ngoon wax yoo xamante ni moo gën a garaaw jël yat di la ko dóor ndax ñooñu nit ki nga doon yow nit bi nga doon moom la ñuy remettre en cause sa dignité humaine moom la ñuy remettre en cause tey Marine Le Pen ñi nekk France depuis son père ba tey jii nii. Mhm. soo xoolee tey jii nii le courageux euh, nu mu tuddati Fodé Sila SOS racisme. Mhm. kañ la commencé di xeex contre le Front national de Jean-Marie Le Pen. Mhm. tey soo demee en France même suñuy def marche muy la gauche muy l'extrême gauche muy la droite bëgguñu sax associé wu ak waa Front national bu Marine Le Pen pour def marche ñu nekkee au niveau de l'Assemblée même les député di de Marine Le Pen suñu dugalee tey jii ni motion de censure waa gauche même bu ñu d'accordee ci idée bi nangu ñoo associé dara ak Marine Le Pen ndax lan taxawaayam racisme bu extraordinaire boobu xam nga quand on suñuy wax tey les les étrangers di leen di leen naw di leen yëkkati naan li ñuy dugal ci réew mi naan dañ leen di jox dép dañ leen di jox ay député yooyu pour une certaine reconnaissance loo ci defoon yàq nga ko xam nga pourquoi. Mm-hmm. parce que ñooñu tey. Mm-hmm. ils sont en insécurité bu ñu nekkee Europe ci ci ku ci Marine Le Pen fal woon tey boo moytul nga gàddu say bagage ñibbisi. Mm-hmm. ñooñu ils doivent sentir la présence de l' état au fu ñu xëyee suba dañu war a. sentir ni seen état mi ngi seen côté. seen état mi ngi xam li ñuy dund foofu mu leen di protéger. parce que tey Serigne saalu miy nekk fii état mën na koy protéger état bañ ko protéger mu dugg ci biir këram ndax mu ngi ci biir réewam wala mu dem làqu ji dëkkam mais tey un immigré bu nekk en France yow lee le suba ak ngoon bu ñu xëyee problème bu am France Marine Le Pen du sax ay non seetul gauche seetul droite bu chômage amee mu ni moom la délinquance bu amee trafic déggu leen fi fan yi passé ñu naan mhm. ce sont les Sénégalais ñooy les plus grands trafiquants mais moom ak Éric Zemmour ñooy ñoom ñoo yor loolu mhm. alors cette personnalité là bu ñëwee au Sénégal ñu recevoir ko maanaam moo tax ma indi la ni la sept milliards yi ñuy wax recevoir Marine Le Pen moo gën a graw parce que tey ñun li ñu def mooy wan suñu étranger sénégalais yi nekk à l'étranger ñu leen ku leen saagaak ku leen dóor ak ku leen xas ak ku ni yéen du ngeen ay nit ku ni ay délinquant ngeen nit ñun au niveau du Sénégal même bu ko ëpp bu ko France ma mak mais élection 2012. 2000 2000 c'était en 2019 Serigne Sall si je ne me trompe pas de de de de Macron c'était quand c'était euh, mais deuxième tour lan moo fa am nu ko tuddee un front républicain contre Marine Le Pen ñi bañoon Macron sax dañoo def ànd ak moom pour que Marine Le Pen bañ a falu waa sa Mari Marine Le Pen boobu moo ñëw suñu Sénégal. ñu ñu recevoir ko donc le premier problème mooy audience boobu ñu accordé Marine Le Pen dégg naa léegi béy mu ni wéy ku nekk mën bu nekkee président France bis bu nekkee président France bu boobaa ñu seet entre ay coopération bilatérale